مولانا السيد جعفر بن حسن من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الامتلاء بسم الله العلية مستدريا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأصلي بحمده موارده سائغة هنية منقطية من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النبي الموصوف بالتقدم والأولوية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستملح الله تعالى رضوانا يخص العبادة الطاهرة النبوية ويعوض الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجيه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطأ الخطأ وخطاه وأنشر من قصة مولد النبوي برودا حسنا عقلي عطر اللهم قبره الكريم بعرف شطي من صلاة وتسليم اللهم قبره الكريم بعرف شطي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شطي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف صصيب صلاة عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم عطر الله وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه شجرة معناه نقله إلى مقره من سلفة آمنة الزهيرية وخصما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها صبا كل صب لهبوب نسيم الصبا وأيلعت الثمار وأن الشجر للجاني جنى ونطق قريش بسفاح الألسن العربية ودوابها البحرية وأحسنت العوالم من السرور كأصح مياه لا لزمنه وانتهكت الكهانة ورحيبت الرهبانية والتا وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالم وسميه إذا ودعتيه محمدا فإنه ستحرر الكريم بعرف شقي من صلاة وتسليم عليه ولما تم من حبه شهران على ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقطه وشكواه كريم بعهد شقيم صلاة وتسليم بعهد شقيم صلاة Tuubaa عطر الله وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك Salve nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiyallahu taala an abdillahi wa xadimi rasulih ridan yashmalu ahlahu min al ali wal ahibba mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gii béréb bu tedd bii ñuy dundal guddik sangu bindéef yi ci ndigalul kilifa yi di ziyaare bu baax mawlaana cheikh muhammadul muntaqa ñaan sunu boroom sàmm ko dëgëral di siyaare mbooleem fu ab jullit nekk di béggee fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yërmaande yàlla jooju xéewalu yàlla googu nit ku mat kooku yàlla feeñaloon dem daje woon ak guddi gi ñuy màggal nii ko sëriñ Muntaxa waxe léegi kilifa yi ñoo sàkku ñu waxtaan ci ab tomb ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tànn nag yonent bi alayhi salaam ci biir këram ci biir njabootam mooy ni mu ko waxee tom boo xam ne war naa soxal ku ne ndax benn ngay jaboot baa ngay njaboot te ñun ñëpp yonent bi alayhi salaam mooy sunu royuwaay yonent boobu nga xam ne yàllaa ko tànn bind ko ci mat def ko muy royuwaayu ñëpp mooy nit ku sot koo xam ne nu nit war a mel mel na ni moom la sëriñ bi junju ca muqaddamatul am naa di wax ne wa naasu yi daje ci ñu baax yépp daje na ci jëmmam ja yi tasaaroo ci yu baax yi moom dajale na ko mooy nit ku sotti ku mat ku mat lim doon waaye mooy al misaan mooy royuwaay bi ci moom lañuy ñuy natte baaxu ku ne ku ko gën a jege ci mbaax gën na kenn nag du àgg ci moom kenn du ko dab waaye noo ko gën a jege rek rawe ko ñeneen waaye noo ko gën sori yéese ko mooy huwal man naasu wal miisaan mooy nit ku sotti waaye mooy nattukaay bi ñuy natt nit ñi kenn ku ne sab dayo yonent boobu yàlla tànn matal ko def ko muy royuwaay ci lépp la kon royuwaay la ci biir këram waaye royuwaay la ci nim doon dunde ci biir njabootam kon jullit ñi war di ko fàttaliku saa su ne xam ne am nañ seen royukaay bu leen yàlla tànnal mooy ki gën kon teg ci suñu kanam lépp lu ñuy def ñu dellu ci moom loolu la fi ñu baax ñu ko wutu ñëpp nekke woon di ñu jegeel ak dundam bañ man koo xam ci seeni jëf ak seeni jëflante yonentu boobu nga xam ne ku waxtaanee yonent ci biir këram ak ni mu doon dund ci njabootam danga waxtaane jëmmam ju tedd ja yàlla tànn ko mu ràññi ci yu bari yee ca gën a fés mooy mat doon nit ku mat ku sotti ku ko gis xam ne nit ku nitee ngi nii ku yiw a ngi nii ku baax a ngi nii ku yéwén a ngi nii ku bàyyi xel ñépp a ngi nii auzubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Mouhamadunil Muntaqa ñu ngi yëkkati kàddu ziyaar ak yeesal sunu jaayante ak Cheikhul Xadim di ko ci sa loxo mi nga xam ne yaay Serigne di am mbégte mu réere ci jataay bii nga xam ne mooy bisu mawliduhu muazzamu mubaarakun muxtaramu taazimuhu yanxajimu ala dawi taqaddumi moo waral sa jotaay bii di jëfe ndigal loo xam ne jotoon nañ ko ci màggal gi di la ci ndokkeel di ñaan sunu borom bàyyil nu la fi te may la wér ba yéene yi nga xam ne fas yéene nga ko liggéeyal sëriñ bi yépp nga mën koo def ni nga ko bëggee te nu ànd ko ak yow ndigal lañu jotoon nag bañ ko jotee ba fii mu ne ci la ñu nekk muy màggal gi jàll ci jàmm ak salaam ñu ñaan nga yàgg koo jiite lu yàgg waaye amoon ndigal itam ci dundal bis bii nga xam ne mooy bisu soppeeb Cheikhul Xadim radiyallahu anhu bi biñ jotee ndigal li nag nan ko jote woon rek mooy jéem a roy xam ne noonu la ko sëriñ bi daan dundale ci subaak léegi dañ tam jàng nañ fi fukki kaamil ak ñaar xasaa yi di kenn xamut nu mu toll bi guddi gi jotee itam laltaaye nañ ko waxtaan boo xam ne dañuy def at mu jot ñu tànn benn tomb ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ren ji ñu tànnoon tànn tànn euh, dunduk sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ci biir këram ndax kat moom la ñu sunu borom royloo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana tax at mu jot ñu tànn benn tomb boo xam ne dañ ko jàngat man koo royee ca dundam gu sell ga sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sëriñ bi amutoon benn soxla bu dul rek xeñtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aslamtu wajhi li rabbin la sharika lahu maa allasi xafwuhu shughli wa xaajaati loolu moo tax ni nga nu ko digale woon boole ko ñaari mbooloo yii muy daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne moo yore jumaa ji ak raw rawdu rayaaxiin bi nga xam ne itam ñoom ñaar ay jëfandikukaayu sëriñ bi lañ jaayante amuñu genn bëggul weesu déglu ndigal ba mën koo jëfe moo tax ñu àndandoo liggéey bi noonu ci suba ba léegi sëriñ Mbàkke Abdourahman moo doon waxtaane waxtaan woowu mu doon waxtaan wu am solo woo xam ne wu yaatu la bi ñu tàmbalee njàng mi itam nañ ko baaxoo def rek dañ ko ubbee barzan jiyu nga xam ne maa doon bàkkeelu ubbi ko jàng ci ab ay bunt sëriñ Afiya ah, sëriñ Afiya imaam mi moom itam jàng ay bunt ñu jox sëñ Habibu Jatara moom itam mu àggale ko noonu lañ ko baaxee dafa di jot saa bu ñu jàngee benn bunt ci barsan jiw nag dañuy yëkkati benn fukki bayit ak ñaar ci jas bu fukk yëkkati fukk ñaar ci mawaahibu yëkkati fukk ak ñaar ci muqaddamaat nga xam ne ñaar ñetti téere yi ñooy jeexandoo te bunt bu ñu jàng day tolloog ni barsan jiw di waxee taarixu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu feeñagul ba bu ñu feeñee ba bi ñu laqoo li fi xew lépp bunt bu ñu yëkkati nag day tolloo ak benn bunt ci ñetti xasida yi sëriñ bi yooyu yi loolu nañ ko doon barkeeloo kon nag ñu ngi la koy jëbbal tey fedd feddliwaat sunug laxasaay feddliwaat sunu jaayante xam ne amuñu genn bëgg amuñu lenn lu ñu bëgg lu du sëriñ bi amuñu lenn lu ñuy xeñtu lu du sëriñ bi na mu waxoon ca soppeem ba rek sallallahu alayhi wa sallam maa la si xafuhu soxli wa xaajaati kon nag ñun itam sëriñ bi rek moo nekk mooy sunu loolu waa xisbu euh, tarqiya itam sëriñ sëriñ yuusu dafa waxoon sëriñ afiya mii ne ko bâche bii ñu defoon ci buntu kër Cheikh Mahmadul Fadil ci màggal gi dañu ko fi bàyyi ngir ñu mën koo jëfandikoo ci gàmmu gi fi mu nekk ni soxna yi ñoom itam foofa lañ féete ngir sàmmoonteeg war woon may barab bi ak ni nga xam ne noonu lañ war a doxe fii ci barab bi kon Mbàkke ndoo ngi tënk foofu tey delluwaat lu ñëpp di yaasal sunu jaayante waaye di ñaan sunu borom bàyyi lu la te may la wér ba sa yéen yëpp nga man koo yeggale te lépp loo xam ne jëf nañ ko sunu borom nangul na ko ci barkeb sëriñ bi salaamaaleykum waaleykum salaam sant rek di gën a sant sunu borom ñu boole sëriñ bi di ko gën a santaat nag ci tawféex yi munu may barkeb sëriñ bi ñu am mel ni ki yéen man koo taxawal liggéeyam bu réy bii fa tabaarakallaahu sant rek lan ci def sant sant rek lan ci def sant nan ko boole gi mu boole sëriñ bi sant nan ko sant santaat ko ci tawfiix yi mun may ci barkeb sëriñ bi ban mën a ban mën a am ñu mel ni yéen ñu ko mën a taxawal taxawal liggéeyam bii sàmmal ko ko na mu na mu ko gën a leen na mu ko bëggee jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf eh, xanaa ñaan rek moom gën dinu gën a gàtt nag tawféex tawféex sëriñ bi ba lii taxawaay bii di wéy di wéy di wéy di wéy ba bis penc ba dolli ko rek di gën a di gën di gën di gën a rafet di gën a mat di gën a sell eh, ba bis penc ba rek eh, loolu rek la ñuy ñaan jërë ngeen jëf. na ñëpp tàllal.